mu mooy ñun waa kër sëñ mbamba ñu bañ a jox waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal waaye yéen waa kër Cheikh Ibrahima lii seen ndigal mooy sëñ Bamba jox leen ndigal ba pare ngeen bañ koo jëfe nee na ñaari mbañ yooyu rek am ci yoonu murit muy njabootu sëñ Tuubaa ñàkk ñoo jox ndigal ak bu ñuy joxee ndigal ba pare ñu ñàkk koo jëfe ñaari mbañ yooyu rek am ci yoonu murit màggal gi nag dañoo waroon première safar comme ni ñu ko màggale fii ci Touba Argentine noonu lañ koy màggale ci yeneen daayira yi ba keroog fukki fan ak juróom ñett yi muy 18 safar di jot ñu màggal ko màggal bu rëy ñun nag njabootuk Cheikh Ibra fii ci Touba Argentine ñu ngi ne ñàpp ci gannaaw njabootuk Sëñ Tuubaa gi fi ne bun ñu def leen ñu def bun ne ñu bàyyi leen ñu bàyyi ndax kat dégg naa ci kilifa mu ne de Cheikh Ibra nee na ko fépp fu jëwriñu Sëñ Tuubaa nekk mbooleem Baye Fall bu fa ne bu fexee ba làq ngërëmam làq na ngërëmul Serigne Touba ñun nag chaque dimanche nii la ñuy def dajaloo fii sikkar dajale suñuy addiya dajaleel ko ke fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Fall jëmb di ko ñaanal suñu borom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal it Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moom li may faral di wax rek xalifa gi da koo jëli ndax tarbiyewu na ay baayam tarbiyewu ay magam képp ku fi toog ci xalifa sëñ Tuubaa rek liggéeyal na la ba làq sa ngërëm kon nag ngërëm yooyee moo daje ci moom di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziar bu baax suñ sang bi ci gannaaw muy maam Ngunda Fall maam Ngunda ñu ngi koy ziar bu baax ndax mënoo koo xàmmee ak dongo yi heure bu ñëwee rek mi ngi jaxasoog ñun di liggéeyal sëriñ Tuubaa moom sëriñ Taala moom sëriñ Modou Fall Mbenda moom maam Cheikh Ibrahima Fall Lam kon nag sëñ Góora ñoo ngi yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom liggéey bi muy daayira Jësbul Murid Touba Argentine tey fédération Sëñ Touba bi ñëw seet si ñu yi lëkkale ñaar fukki daayira yeeg ñaar yi ci réew mi nga xam ne seenaw doxalin ci réew mi moom du lu ñuy toogati di ko wax ci média ndax àddina sépp xam nañ ko jënd nañ fi kër Sëñ Touba ziar bu jot addiya ji ñuy yóbbu kenn du xam nu muy toll lépp ngir liggéeyal Serigne Touba rek moo leen tax a jóg di ziar bu baax jëwriñ sëñ Yankooba di ci teg sëñ Bamba sëñ Maam Cerno amal mboolem jëwriñ yi rek xëy na suñ xol a sedd ba mënuñoo wax waaye du ñàkk bés dana ñëw boo ñu invité comme ni nga koy defee rek loo ñu laaj rek ñu gën koo yaatal Cheikh Ibra xàll aw yoon moo ko tax a ñëw bu fekkoon daa ñëw bàyyi suñ Bamba noonu kon ñun duñ xam fu ñu jëm waaye ñoo xàllal yoon wi leeralal ñu ko ban xam fu jaar ñun fu ñu dajee njabootu suñ tubaab daje fa ñun ñoo war a wane loolu noonu waaw li ci mën di am mooy nu mu meloon daaw rek dana lu ko ëpp dana mel ren noonu ndaxte euh, chaque jour dama koy wax ji ne leen na leen di góorlu ba lépp luy yaafuus bu mu jóge ci ñun lépp loo xamante ni tamit lu ñuy luy ñaaw la bu mu jóge ci ñun te bu sewee seerofal comme ni ko suñ bàmb mi waxee léegi noonu lay demee incha allah rabbi bu sewee bu buñ ci eggee man bokk dinaa koy ànd ak ñoom ñu ànd ci liggéey bi di ko def nañ ko waree ba lépp lu ci man di ñaaw du jóge ci ñun